waa Tëngéej pare ngeen Rio pare ngeen Mérina pare ngeen Thiawlène pare ngeen ana majorette yi pare ngeen journaliste yi pare ngeen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 non parce que boo xisee face to face wax moo ñu fa yóbbu woon mais le 18 jëf moo fa am mais làmb ji moom bu dee mag moo soxla man mii xale nekk si yoon man xamoon na laa war a def gis nga li matu li sama ginnaaw ay caaxaan dañuy dagg seen yitte ngir man billaahi dañ may teg condition yi baax mais say jàmbaar fan nga teg ni ngoma mag la ngoma xale la ngay xale ah, lamb tax koo jóg lamb la laa jóg mu soxla nga soxla waaw mais dëgg la mais man bu dee xale man maa gën xale naa ne moom mag sama mag sax si lépp moo ma jiitu si làmb maa ko mujjee dugg si làmb te performance bi ma def si làmb su ma ko doon xool sama palmarès du ma bëre ak moom mais bëgg bëre moo tax ma bëre ak moom ma jël si la nga ne maa ngoma du combat jaar jàll rek la fan nga ko teg waaw fi ma ko teg mooy si li may entraîné ak condition yi ñu may teg ba xam ne man li ñu may teg non nekkul ngoma moom moo ratee quoi ci làmb fan nga teg loolu ci entraînement laa ko teg ci entraînement rek laa ko teg combat bi nee na da koo soxla de amee ah, nee naa lu mu ko soxla benn man maa ko gën a soxla fuuf ma seeti ko mu ne ma yow taxoo koo jóg arbitre bi na nga taxaw dëggal sa bopp mooy xeex mooy bëre mooy daan daan bi. mooy li ma la waxoon rek li ma la wax du ma si jóg nee la toujours jikkoy mbaam bi mooy ñëw du ma annuel incha allah. la jikkoy mbaam bi di ñëwee. jikkoy mbaam bi si biir géew bi lay amul paa bu may tegg si ginnaaw damay percer si kawam dex dem jëli li ma moom incha allah. tey jàmbaar nga dox ci ngoma. mais loolu kese moom war parce que su dafa sori tëngeej laay jógee te ñoom Dakar lañ nekk te tëngeej laay jógee tëngeej dafa sori xam nga te damay yóbbu ay xale yu ndaw ay mbooloo laay yóbbu ay mag ay kilifa kon waruma leen guddeel si dara. te du ma leen guddeel mu waxaat ne yaa ngi doog am adversaire ndax adversaire yi ñu lay jox yëpp boo xoolee dañ naan say jàmbaar moo man mais combat bi nee na yaa ngi doog am adversaire arbitre siffle moo la fa bàyyi day samp jaaga xeex ak yow xeex bu saf sap. man musuma nekk musuma nekk favori ci làmb outsider laay nekk chaque jour te su ma ñëwee damay def résultat moo ciy raw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 fii mooy Tëngéej ñun lépp lu ñuy xare rek bu ñu amee kandidaa mu nekk président dañuy gëm ne day gagné bu ñu amee équipe muy fubal dañuy gëm ne day gagné bu ñu amee mbër muy compétir dañuy gëm ne day gagné ñun esprit gagnant lañ yor du ñu ànd ak kuy perte sax incha allah le 18 ma dem jëli ko li ma waxoon juguma si. buñ la sëy jàmbaar ñu ne le prince des arènes.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 Euh, sa papa nekk mbër def fi dara yow aussi nga ñëw te doo entraînement loolu amul sens. te eh, da ngay gëm boppam quoi nit da ngay gëm sa bopp man damaa gëm sama bopp te bu ma ñëwee si biir géew bi jàmbaar ji laa indi. préparation combat bi est-ce na yoon est xel dal na physiquement techniquement mystiquement mentalement est-ce que pare na. ah mais ñu ngi ma nekkoon si condition yu baax parce que ñu doon préparé roi des arènes ñoo ma doon préparé coach yi ñu doon préparé ñoo mu daan Boy Niang préparé ko mu daan Ama Baldé ñoo ma préparé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 journée petite production victoire le 18 décembre le fan la lay jóbbu bi lan lay signifier ci yow maanaam nga jëlee ndam ci jour boobu noonu fan la la mën a yóbbu fan nga teg say bët. Seydina li ma lay tontu ci loolu mooy le 18 si guddi wala le 19 incha allah boo ñëwee dinaa la wax ñi ma war a bëreel te incha allah maa dinaa ko daan damay wax si le 18 ba pare. le 18 maa ko fam damay dem jëli ko incha allah. damay dem jëli ko ko.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 en l'occurrence le monsieur le maire Omar Cissé honorable député dafa may jàppale ay jigéen yu bari ku si mel ñoom Lamine Diop ñoom Jibi Mar xam nga ak autres grand yi koñ bi siy jàpp waa Pargne aussi ak waa Parcelles dañ jàpp bu baax a baax kon mënuma lu dul xam nga góorgóorlu yokk mbooloo mi te loolu laa gëm rek te incha allahu rabbi combat bi ñu du jàng ñëw si ñëw sama waa dëkk waa Fandène ñu ngi si biir incha ñii ñan la. waaw ñii délégation honorable député la Omar Ciss docteur Omar Ciss oui. est de cabinet moo ngi nii xam nga monsieur Guèye moo ngi nii. ni te boo sukkandiku da ngay xool ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoo xam ne ñoom ñoo boot drapeau dëkk bi. Mhm. di leen soutenir ku mel ni say jàmbaar dafay représenté dignement Tëngéej ku mel ni Karbala ku mel ni Ndoumar ku mel ni Jubar euh, euh, bu Jàng mais kii tey moom moo xew ne ngeen déplacé ñëw teew muy xale bu ndaw xeebu leen ko lan moo tax dèjà ngeen déplacé wu def acte de bi ak fan ngeen di séntu say jàmbaar ba à quel point ngeen prêt pour soutenir ko. asalaamaaleykum euh, waa Thiawlène waa Mérina waa Tëngéej euh, man dama fi ñëw tey pour représenter le maire député maire Omar Cissé d'abord balaa tontu maa ngi nuyu waa gox bi yëpp di leen xamal ne monsieur le maire dans sa vision mooy politique jeunesse bi mu yokk dafay jël l'élite di ko jàppale te ñun dañu considérer Sey Diambars comme l'élite wax na ko tax tout à l'heure nee na c'est le porteur de drapeau de la ville de Rufisque bu ñu ko jàppale day mel ni jàppale la Tëngéej parce que tey Sey Diambars le dimanche bu demee am victoire Tëngéej moo am victoire fii leen ñëwaat fii leen koy féete donc ñun duñu mélanger aucun effort pour l'aider incha allah man tey gis naa ko xam naa ne xaw ma dara si làmb mais confiance bu mu am ah bu mu àndal lii incha allah le 18 dimanche dinañ ñëwaat fii feete ko incha allah. boo ko ba muy bàyyi rek incha allah. muy yegg au sommet. dinañ ko boot dinañ ko jàppale. ba mu ñëw ba ñii ñeneen ñi euh, les euh, de la lutte incha allah dinañ ko fa yóbbu te loolu dina am parce que si tànk yooyu la nekk. Ah merci euh, Mamadou Gueye chef de cabinet du maire. bon li may tàggatoo rek mooy. li may tàggatoo mooy bu bés ba jotee na ñëpp mobiliser wu derrière Sey Jàmbaar. moom xam na nu ñuy defaax moom si bloc ticket yi du du tey nañ ko mus a jàppale moom xam na ñun xam nañ lenn rek laay ñaan nit ñi yooyu yëpp c'est réglé déjà na ñëpp ñëw mobiliser dem mu mel ni tëngeej nañu jël déplacé ko yóbbu ko arène ah, incha allah bu ñu demee arène dinañ xam ne waa Tëngéej ñu nga fa te waa Tëngéej ñu ngi si ginnaaw say jàmbaar. waay di sant ñëpp rek di gërëm ñëpp xam nga bon mi profité ko occasion nii ki bay mbokk kii to waa wen pate pate rek mi bay ndaago combat ah, parce que combat nii wen combat na yi buy soole ko no bëpin eh, bon la minoo ki laak i ñaa wuñ mbokk kon mi bay yugo combat nii pour am nga di jofi jofi waay